mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp ah, di delloo ziar ah, bépp mbokku taalibe si màggal atum 2022 bi yàlla nañu ci dugg bisimilahi rahmaani rahim àggalikoog si alhamdulilahi rabil alamin ci barke borom bés bi di ah, Serigne Touba yàlla nañ ko ñu ko yàlla fayal tey ñu ngi fii nga xam moom mooy max maxwa kenn dootul waxati jannatu maxwa ku ko wax wax cheikh bu tedd bi cheikh Béthio Thioune yàlla na yàlla yokk leeram tamit barkeel lépp loo xamante ni liggéey na ko fi tey ñu ngi fii euh, ci diwaanam ñu ngi fii tamit euh, ci daaraam ñu ngi fi ci kër xalifaam euh, si kër xalifaam tey ñu koy ziar moom xalifa bi hmm, di ziar bépp mbokk taalibe boo xam ne fekk nañ ko fii ci janatu maxwa ñu ngi ak jawriñ Lamine mbay jawriñ ñu ngi lay nuyu di la ziar ci bés bu tedd bi ñu bàyyi la nga nuyook askan bi ñuy seetaan ak mbokk taalibe waaw jërëjëfati Serigne Sallou Mbacké jërëjëfati Serigne Sallou Mbacké Euh, ñu ngi ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loolu te gën a wér di ko ñaanal sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke di ko ñaanal sëriñ Saliou dugal cuub waaw di saarawaat bu baax mbokk internet yi ñu seetaan waaw waaw di jëbbalaat kàddu gi loo ñuy wax ci màggal gi wax dëgg yàlla fi ñu toll nii ni nga ko waxee sànq say kàddu fii mooy pale bi nekk ci péncum Jannatul Maxwa pale bi nag mooy fi keesu sëñ Béthio gi ma xam ne nekk ci màggal gi bokkul ak kër gu mag gi waaw tey foofu ngeen ñëw fii la sëñ Saliou ndigal cuun di recevoir gani màggal gi siyaar yi euh, mbokk jullit yi ak mbokki taalibe yi ak ànd jàmm yi fii lañ koy fekk di ko siyaare ci màggal gi te jii nag ñu ne suba la màggal tombeek àllarba sànq xam naa ni rek amoon na génn bi génnoon na recevoir fi ay siyaar yu bari ay mbokki bi yu ko doon indil ay nag ak ñu ko doon indi seen seen siyaar ci màggal gi ren euh, wax nga ko léegi euh, sëñ bi ñu koy siyaar bu baax baax wax nga ko ren ñu ngi waajal màggal gi suba incha allah rabbi tey di ba nag yeeg comme ni ñu koy defee at bu yàlla sàkk daanaka day mel ni ki at mu ne day yokk gis naa léegi waañ bi nii léegi dafa mel ni ki man ci samay bët la ma gis daaw ak li ma gis ren la ma gis ren moo daa mel ni ki tey gën ngeen a laxasaayu ngir màggal gi nga xam moom mooy bi waaw loolu mooy mbirum Serigne Touba ndax boo nee li nga gis li nga gis euh, ren daa ëpp li nga gisoon ndaw loolu day firndeel waxi sëriñ Touba ndax lii xew ci màggal gi ren daa musta xew ndax Serigne Touba daa wax ne xultu wa ayaami ajalit umoosi sama tey ju ne day fooxe sama démb maanaam ci waxee olof day gàcceel démbam loolu su ko waxee mooy lii am tey di jóge ci moom li ko suñu borom defal bu bu ne suñu borom day yokk yëf yi ndax euh, boo xoolee li waral bis bi mooy suñu borom dafa wax ne la in sakatum la azidanakum giñ naa ñu ko sant giñ naa ne ma dolli la ndollante loolu nag màggal gi ak cant la ni ma koy faral di waxe saa su ne màggal gi mënoo su koo tuddee leneen lu dul ak cant cant dafa bokk ci xeeti jaamu yàlla yi féete kaw moo tax suñu borom moo waat nag gi ne ni ko sant giñ ne na mu dolli la gi nag day cat goo xam ne si suñu borom da koo nangul Serigne Touba moo tax bi ko Serigne Touba wootee te màggal gi ak payoon la goo xam ne si sëñ bi dégg nga ci ni nga ko waxee xarit yow ma safi saa na naan asi maanaam li nga xamante ne moo taarifi sëri safar Serigne bi mu génn di tukki tukkeem boobee ne ne jamono jooju daa fekkoon ni natt yi daan ñëw ci moom natt yooyu daan ñëw ci moom nag. doon ay naqar doon ay tiis doon ay métti ñu koy teg bu génn sa njaboot rek daa métti kon na yeneen mbir du ci xew ci biir loole lu nekk di am nag lu nekk di am ba lii xew ni nag wax yàlla mënut ñàkk waaw gi noonu rek lay demee waaw bernde la bernde ku ko def da ngay yokku loolu moo waral nag lii xew nii kon sant gi ni sant sëriñ bi mooy lii de ab rek saa su ne gis ni nag yi yokku na wàññi yokku na wax dëgg yàlla saa su lu sëñ bi doon def rek ren dem na lu ko ëpp te loolu mooy yokkuteeg màggal gi te sëñ Béthio noonu la ko daan lu mu mës si def ren bu déwénee mu def lu ko ëpp waaw lu def ren nag bu déwénee mu def lu ko kon yëf yi noonu la rek la demee te sëñ Saalu ndigal nag dañ koy ñaanal mu yàgg fi te wér ndax lépp lu sëñ Béthio daan def moom def na lu fooxe loola boo diggee dëkk bi xam naa ne di ngeen dugg dëkk bi boo gisee ginnaaw ni ginnaaw nii am na ay waañ te waañ wi ci nekk la nga defoon daaw ren def nga lu est-ce que matul ay 500 cin yu fi nekk. 1000 mën a la. 1000 mën a. lañ fiy taal. 1000 daaw 300 mën a la woon ren nag li may wax ne yokkute suñ tubaay yi ren 1000 mën a lañ fiy taal. 300 ba 1000. 300 la jógee woon ren mu def ko 1000. boo xoolee ki fi ñëw léegi siyaare nag yi muy Serigne Khadim Ngom indi fa sa Serigne Khadim Ngom di góor ci Serigne bi di docteur cardiologue en en France Paris moom moo moo def añ woowu. ten moom noonu la ko noonu la ko sëñ Béthio digalee woon noonu ne sëñ Béthio digale ko woon nag noonu la ko ñëwaatee defaat ko ànd ko taawam bii di sëñ Saliou digal cuun léegi gis ngeen sànq ñëw na fi jëbbal ko ay nag nag yi ci bunt bi moo ko fi moo ko moo ko fi bàyyi moo ko fi indil sëriñ bi ngir waajal waajal vee màggal gi dafa mel ni ki li am kéemtaan waaw man lu yéeme la ci man nga mille mille cin moom ak nag yi nga xamante ni weesu na lim bi amoon daal waaw mille mën yi moom nga gis mais am na ay sañcaan sañcaan yi bu ngeen fa jote woon ba mën a gis waañ yi di nga xam ni li ñuy wax rek mbir maanaam mais fi mooy pour janatul ma wax lu ko couvrir ndax euh, màggal gi fi ne dem na ba nit ñi daanaka bu ñu ñëwee màggal ñu amul kër gu ñu wàcc janatul ma wax la ñuy wàcc mooy daara ji kon noonu la demee kon moo tax màggal gi mënta ñàkk mbernde yi mooy màggal gi moo tax du doy yi lu mu bari bari bari nga yaakaar ne bari na fekk ne mën naa sax bañ a doy ndax màggal gi àttan lépp te lu fa oo ko waaye lu ci waay def Serigne Touba nga ko defal kon sëñ Saliou Ndigal ni mu ko waajee defe ko ni wax dëgg yàlla sëñ Béthio bég na. li ma lay mujjee laaj ci sëriñ Saliou Thioune Ndigal muy xalif bi lan la leen ni faral di sas yéen ñi nga xamante ni yéenay taalibey sëriñ Saliou yéenay taalibey Cheikh Béthio Thioune. waaw cantaaku ni amuñu sas moom sëriñ bi du sas kenn. ndigali Serigne Saliou ci sëñ Béthio loolee lay continuer continuité boobu mooy dox amul sas Serigne Saliou moo digal sëñ Béthio moo woo sëñ Béthio am ñëw naka neel si taalibe yi nañu fonk màggalu Serigne Touba yi neel si taalibe yi nañu xas day Serigne Touba mooy dégg nga ñu koy jàng te ñu jàng duñu ko xool yaa ngi dégg noonu neel si taalibe yi ñu fonk gàmm gi kon loolu de loolu nag day ndigalu sëriñ Saliou ci sëñ Béthio. loolu rek ngeen saxoo. loolu ñun ci amuñu beneen feuille de route feuille bi ñu am ñun cantaakoon mooy sëñ Béthio fi mu ñu jaarale bëgg lu baax xam lu baax di ko jëf di ko wax te di ko doxee yiiw ba gis bëgg la loolee nag moo ko def ci ñun tawféex la bu ñu Sëriñ Tuubaa defal ndax euh, Sëriñ tuba bind na waxe ne nu ne ay ñoñam tawfeex gu nu am ci sunu borom waxee na ko nu ne loolee nag daa fil ko ci sëñ Béthio kenn du Cheikh Béthio de waaye dafa mel ni ki nii dem na demul mi ngi fi ba tey jëmaam mi ngi fi ba tey sëñ Béthio du fi jóg su ma nee sëñ du fi jóg dañuy gis ni jëmm waaye lay principe bu sëñ Béthio loolu du fi jóg ndax jëmm ji di bi humain bi enveloppe la maanaam mbuus la buy denc mbirum sunu borom mbuus googee nag dafa am fu mu tàmbalee am ab bu mu war a yem loolu xam naa waa ahlu tasawuf ñoo koy xam loolee nag amee app day yem foofee waaye sëriñ Saliou moo waxoon suñu becc na ko wàllu yu yàlla yi rek dégg nga wàllu yu yàlla rek ñoom saa buñ fa wanee ginnaaw seen mbir ci lay ëpp doole ndax ci keroog lañ gën lañ mënoon ci lañ koy gën a boobaa dara dootu leen tëgg waxuma laa nag mbirum Serigne Touba xam naa ne bu ñu bu ñu moom la ñu waroon na wax si ab simili sax. waaw dañ ko wéy ndaxte sëñ bi seex bi dafa mel ni yow yaay yaay commencé aalo te waxoon nga ma ñaata minute la ñuy def waxoon naa ko tamit. waaw lépp ci màggal gi ndax euh, li ngay doo gën di dox rek di gën xam looy gën di dem di gën a gis loo war mën a wax waaye lépp màggal gi la sëriñ bi nag li mu def ci màggal gi moom loolu sëriñ Saliou ko digal moo tax saa su ne da koy gën a mën. te waaye ñi bari na si ku ci mel ni si Serigne Saliou Thioune noonu la ko ànd ak mboolem seen rakam yi. boo génnoon léegi ci penc bi dugg ci kër gu mag gi si dinaa Serigne Saliou rakam xam ni sax yor yor màggal da koy indil ay mana. daaw indi woon na ay mana ren jii moom it la mu defoon daaw ren ji yokk na moom si dinaa Serigne Saliou. te noonu la ko mboolem seen njaboot sëñ ba jox ji defee ku ci nekk da ngay berde di togg di joxe ndax loolu mooy gi. loolu la leen Sëñ Béthio yare loolu la leen Sëñ Béthio jàngal ñoom noonu lañ booloo woon kook Sëñ Saliou ndigal cuun ci liggéey bi nga xam ne dara du taxaw foo ci dem ma ngay suus boo demul léegi ci Sëñ Xaadim Cuun député moom it di rakk sëriñ sëriñ bi sës si moom rek te du yàq dara moom boo demoon foofa yëfi noonu la mel ku ci nekk daal lay sa waar ci màggal nga di ko defal Sëñ Béthio yokk nga ko te yaa ngi koy def njaboot gi fi nekk koo ci ko koo ci dem ci keesam këram macha allah mën a yaa ngay takk xéewal yaa ngay jalaañoo te léegi ci kanam tuuti di ngeen ci xam dara bu soobee sëriñ bi. jërëjëf euh, jawriñ Lamine Mbaye ñuy jéggalu ci dérangement bi waaye tamit euh, dafa mel ni kii kàddu bu xasee jóg ci yéen lu jëm ci sëñ bi rek dootoo leen moomati seen bopp waaye dafa mel ni ki da ngeen ni jël seen jëm ak seen kàddu seen temps yëpp jox ko sëriñ bi moo tax euh, demee nga aal sax ba benn moment boo xam ni bëgg naa la dagg waaye tamit. waaw loolu moom mënut a ñàkk ndax ab taalibe ab sëriñam cafel waaw sëriñ Tuubaa moom moo ko defaloon yenent bi moo tax ñun fa ñu mel noona na maha mahabati yal muxtaari sidna jiditna hubbil makaari na wal ahli wala daa dammi wa ahli ba mu jeex dafa gudd waaye loolu cofeel googu mooy waral saa boo ci dee wax ñun sëñ boo ci sunub sëriñ te moom ku ne xam na ni mu soppe woon sëriñ Saliou bu daan wax ci sëriñ Saliou bu xasee tàmbali du xam fu muy jeexale kon nu noonu lañ mel ci moom rek di ñaan nag yéen seen liggéey bu rafet bi ngeen def te ba ba tey ngeen ànd kook nun dañ leen di ñaanal seen liggéey bi waaw mu barkeel ndax moo am solo ndax gis na ne at mu jot ngeen ñëw couvrir màggal gi ànd koog ñun te loolu bu soobee seen station da ngeen ñëw tax ci ngeen bokk waaw kaw kawteef gis naa ko léegi moo tax lii moom kéemaan la ngeen ngeen ànde ko nii ñu ko àndee wax dëgg yàlla waaw day ngeen ànd ak kawteef ñëw kon daal yàlla na sëriñ bi barkeel bi ngeen di ñëw ngeen ànd ak yeneen rakam waaw yëfi di a dox ba nekk ba international ñëpp di ko jërëjëf jëriñ jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf mbokk yi ba beneen yoon incha allah